c'est parce que loolu moo ma gën a yitteel sax bon wax ci affaire affaire Adji Sarr euh, euh, on a assez mission wu CEDEAO bi bi ñëw le le 27 ñoom ñëw nañ fi def benn euh, pour rencontrer ñi nga xamante ne ñooy parti politique ak organisation citoyenne yi nekk fii Sénégal pour ñu dem si élection 2024 est-ce que loolu di dafay dina conforter lu nga xamante ne moom mooy seen seen xalaat waaw parce que ñun biir nañ CEDEAO on a fait un manifeste sur l'état de la démocratie et hmm. des libertés au Sénégal donc on a envoyé à la CEDEAO ne ko réew mi bu ngeen ci jógul lii moo fi xew d'abord te bu continuer nii réew mi dina am problème donc bu ñu gisee CEDEAO di ñëw dañ ciy kontaan waxuñu ne nag loolu moo tax mu ñëw mais au moins correspondre nañ ak li nga xam ne moom la ñu bëgg. donc tout va bien. non rien ne va dans ce pays là. ah dans pays là. parce que. Non, attendez. On ne peut pas, dans un pays où les gens dañu am ay jafe-jafe jënd ceeb jënd diwlin jënd lu ne pour lekk problème électricité problème ndox. Mhm. ñu dugal près de mille cinq cent personnes ci kaso bi rey fii en deux en un an une centaine de personnes. mais mais da xam ma dama sànq dama ne entre cinq ñii nga cinquante ñii naan soixante-dix ñii mais il y a au moins cinquante morts. xaw ma la mooy say source de mais man. c'est la première fois cinquante ah, morts. donc ñu rey fii cinquante personnes euh, ñu ne ça marche non ce pays là ça ne marche pas ce pays là est la l'arrêt ce pays là euh, waxuma ndax sur surendettement bi fi am yooyu mais dafa nekk situation bu jafe-jafe te situation bi. jafe-jafe ok mais pas arrêt quand même les les choses. Euh, continue de ouais, fonctionner les institutions ñu ngi dox d'accord d'accord yëpp mu ngi dox mais en tout cas a beaucoup de problèmes ah, yëpp mu ngi dox mais au problème bi problème bari na fi ci réew mi te buñ ci jógul ñu xool engouement bi am ci xale yi am ci par exemple Ousmane Sonko ñu ne ko doo bokk ci loo xam ne teguñu ko ci fenn loolu mun na indi ay jeexi jaax ci réew mi teg nañ ko ci justice parce que c'est c'est justice qui a décidé quelle que soit nature justice bi ñu am mais moo décidé non xam nga quand on a a des fonctionnaires aux ordres qui décident euh, sur des commandes on ne peut pas parler de justice ah mais c'est celle qu'on a moom la ñu am waaw mais xam nga xam nga ñëpp euh, euh, am na ñu bari ñoo xam ne ñu koy ñu ngi koy euh, diingat. Mhm. wax ne lii amut ay muy ay avocat muy ay magistrat muy ay. ay docteur mais c'est cette même justice ah. quand même qui a rendu une décision favorable à l'opposition Euh, après on a crié que voilà. Euh, ah, mais xam nga justice moom justice moom par moment mu arrangé la par moment. c'est comme ça parce qu'il y a beaucoup de juges il y a beaucoup de juges et beaucoup de jugements. donc il y a forcément des juges qui sont là qui euh, prennent des verdicts au nom du peuple. Mhm. il y a d'autres qui font qui prennent des des décisions en fonction. peut-être de leurs intérêts. Donc quand ça arrange la non, pas quand la décision est en faveur de l'opposition, c'est au nom du peuple, mm. mais quand c'est en pas forcément, pas forcément.